ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha ba siiru moo ko joxe woon ngir ñu màggalee ni kazu rajab gi loolee jëfe nañ ko fii ci kër Serigne Modou Massamba Mbacké moom Serigne Fallou Serigne bi joxoon ndigal mbooleem daayira yi ñu toog loolee moom moo tax kër gi wuute nag ni nga xam ne noonu daan mel ba sub màggal loolee di wane ne Serigne bi jëfee na ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci ay kilifaam. ñuy xamle nag ne fii tey ci ci kër Serigne Modou Massamba Mbacké mu Serigne Fallilou. ñu ngi fiy màggale Kazu Rajab waaye dafa wëlbatiku moom daal di ànd ak euh, ndigal li nga xam ne nii moom la sëñ mun Muntaxa joxe ak Cheikh Abol Baraka Mbacke euh, moo joxe ndigal ne mboolem fu taalibeem nekk rek na nga toog foofu ca dëkk ba màggale ko fa. fii ci dëkk bi it kenn ku ne na nga toog sa kër màggale ko loolu moo tax tey ci kër gi mu mel nii. bi ñu xëyee nag jàng nañ fi alxuraanul karim ci lim bu takk lool. noonu lañ ko noonu noonu noonu lañ ko màggalee waaye suñ fàllu moo toll. Euh, fii nag ci kër gi ci Touba ginnaaw bi ñu amee ndigalu ñëw comme ni ko sëriñ bi sàkkowoon ci ñun euh, màggal nañ ko bi ñu xëyee jàng nañ juróom-ñaari kaamil si njiital sëñ Mamadou Gueye sëñ Mamadou nga xam ne moom moo jiital moo njiitu daara ja nekk fële Touba Tawféex ak li muy xasida yu takk yu takku di addeel ko sëriñ bi. ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Massamba Mbacke moom sëriñ Fallou ñenn ci taalibe yi ñëw ziyaare ko mu ñaanal leen waaye ginnaaw biñ jullee tisbaar ba noppi. ci la jàng xatmu alxuraanul karim bi boole kook ay soññe yu am solo mu jëm ci mbooleem taalibe yi allahuma unsur man nasar diin waxadul man xatal muslimin amin allahuma unsur man nasar diin waxadul man xatal muslimin amin ya rabbal alamin barxamatika ya arhamar rahimin subhaana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulilahi rabbil alamin ci nañ jiital di nuyoo. Cheikh Mouhamadou Mountakha. Serigne Mountakha Mbacké xalifa ñaan ñu yàgg fii. di ba li ñu yéene ci lislaam bépp ak yoon murid ñu yàggale ko seen seen. ñoom ñaan suñu te ñu ànd ko ñoom. waaw ñoo ñu ndokkeel itam ñu leen ndokkale ñoom bu ñu ndokkalee ñoom. ginnaaw nag ginnaaw bu ñu leen ndokkalee ñoom. ñuy ndokkal jullit jiital ci wàkk Sëriñ Fallu. nee na ñu bokk bis bi nag waaye ñoo <laughs> ñu ñëpp bokk dañ ci am ak jagle moo tax. nee na gannaaw bu ñu bokkee ñëpp julli ñëpp moo waral ñu ñu nuyoo boobu. waaye xam nañu lépp ñoom ñoom lépp benn rek. nee na ñoo ñu bokk lépp daal ñoo bokk lépp. kon nag ñu ñaan yàlla ñu ñaan lépp ci dara sëñ Fall mi mu ci guddi gi. mu ne ngi xam ne moom la ñu fàtte ko ci guddi gi. ak ak ak guddi ak rayaan gi ñu ci fàtte ko moom it. ñu ñaan daal kal xew yi ñoo ñu toll. mi ngi ñaan suñu borom ci xew-xew yi ñu toll. ñu génn ci jàmm salaam. suñu borom jëlee ko mu jeex ak ci jàmm salaam. ñun daal dañu ci am ak dëgg rek. nee na suñu borom la ñu defal ñu ci am ak dëgg rek. waaye bu ñu daal bu ñu xam bu ñu xam ko bu ñu gis sax ku mu dal waaw. sëriñ bi nee na bu bu bu ñu dal bu ñu gis ku mu dal bu ñu xam ku mu dal. waaw bu ñu jéggi sax ku mu. ku mu dal waaw loolu la fi am daal la fi am daal la fi am. waaw na na yem fa mu yem daal. na yem fa mu yem bañ a jàll fenn. te te na fa na na na na fay na fay sachet. na ci te te te it mu am am benn am benn jeexital. ci ak ci ci julli ñeeg yëpp yëpp sax. waaw toog daal daal ñu am jeex jàmm salaam rek. nee na ci jàmm sëriñ salaam rek. bakk bakk suñ bakk journée màggal gi yëpp li nga xam ne moo fi am moo di njàngum alxuraanul karim njàngum xasida bernde lépp ñu def ko àddiya Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waaye ñaan jàngoro ji nga xam ne moo tàbbi ci réew mi yàlla musal ñu ci